Balcom. Balcom pour avoir une bonne communication. Balcom, bienvenue chez vous. Summa salatu للمستوى ولعله يرضى ثم صلاة مع السلام مع سلام عدية آه. ينتبي للمصطفى ولعله يرضى ثم سلام

يا رسول الله المسوى ولا الله يرضى na bu jamono neexe dina dem ca rawdu ba na bu jamono neexe dina dem ca rawdu ba na bu jamono neexe dana dem ca rawdu ba na bu jamono neexe dana dem ca

mbokki juliti assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu haq waye di leen bal di ñaan yàlla mu boole ñu jéggel ci barki sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ngeen déggé loolu seen xel dem ci yàlla waye seen xel dem ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waye bu ngeen déggé loolu seen xel dem ci kër maam Thierno kanji radiyallahu taala anhu ndax bu ngeen gisee jotaay bi ni mu taaroo ngeen xamne amna lu xew li xew nag mooy bésu diine li xew mooy bésu boo xamante ne dañ ko jagleel sayyiduna muhammad waaye li xew mooy bés boo xam ne kenn koo xam ne guddeem bëccëgam léppam daf ko jël jox ko yonent bi euh, moom moo ko fas yéene woote incha allahu taala kooku mooy kan mooy sëriñ as kanji euh, borom xaas borom xilaas ibnu sëriñ pap cerno kanji baay daara bés bu mag la fas yéene amal incha allahu rabbi ñeenteelu fan gannaaw tabaski quatrième jour après tabaski lay doon incha allahu rabbi bokki muy doon bés bu mag mu am ci ndigal ban ndigal moy ndigalul khalifa mam tierno kanji imam ratib bu Jurbel serigne Habib kanji ak rakam serigne pap tierno kanji Baye di way juru serigne As mi nga xamni mo fasiyene wote yéene bu mag bile mbokki yi bobu nak inshallah rabbi xam ngeen ni ki ko ni ko daf ko jël jox ko yonent kon bu ko wote war na ko woote ci kanam tuti bu nu ci ñewé di ngeen xam Euh, lan moo waral woote bi ak ñan lañu ci woo ñi ñu ko dara jaale insha allahu rabbi ñii ngeen di gis suñu gannaaw ñëpp muy njabootu sunu maam Thierno Kandji radiallahu taala anhu léegi-léegi nag daanu ñëw ci li nga xamante ne mooy programme bi ak ñu ñu ciy woo ak li waral bés bi insha allahu rabbi mhm. daañu jox le président ki nga xamante ne mbooleem soppee Serigne Ass Kandji moo di seen jiit di président bi muy alxaaji Ceekura Seen Papis monsieur le maire dana jël kàddu bu soobee yàlla woo ñi nga xamante ne mooy mbooleem autorité yi mooy mbooleem kilifa yi nekk ci dëkk bi mu fas yéene leen a xaar ci bés bi incha allahu rabbi mhm. gannaaw ci loolu itam daanu jox kàddu gi euh, maam Ahmad Baro Kanji di rakku si Serigne As Kanji moom itam mu woo mbooleem ñi nga xamante ne ñoom la ñu dara jaale bés bi incha allahu rabbi gannaaw ci loolu ñu wéyale li nga xamante ne moo di programme bi. alhamdulilah rabbil alamin gannaaw sant yàlla julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ñaanal ngënkum yàlla bu suñu mam Cerno yalla yàlla dolli ko leer fu mu tudd ak mboolem jabotam way ñaanal njabootam gi dess ci kaw suuf yàlla dolli leen wér ak katan ak guddu fan lol barkeent yàlla Muhammad ñuy nuyo ci pour hadra suñu mam Cerno Kandji yeb waaye jital ci khalifa ba Cheikh muhammad al Habib ñaanal ko yàlla wér ak mboolem ay rakam waaye toftal ci nuyo bi rakam bi suñu serigne Cerno Mouhamadul Moussa Kandji Baye Daara moom itam ñaanal ko yàlla gudd fan ak wér ak mboolem njabootu suñu maam Cerno waaye ñëw ci jotaay bi nuyu kilifa gi di nga xam ne moo waral woote wi muy sëriñ As borom xaas ak xilaas gannaaw bu ñu ko nuyoo rek nuyu nañ mboolem ku teew ci jotaay bi bu ko defee comme ni ko xaaj Idrissa waxee léegi rek jotaay bi bu ngeen ko gisee ni mu sellee ak ni mu baaxee du dara lu dul wooteel yàlla ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax sëriñ As ku ko xam-xam ko ci tànt yi muy sonnal yonent yàlla Muhammad guddi ak bëccëg loolu moo waral mu woote tàkkusaanu sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ca buntu kër maamam di xadara maam Cerno Kanji radiallahu taala anhu bis bi mu ngi am quatre jours après tabaski incha allahu programme bi ni muy demee mooy bu ñu xëyee daañu jàng kaamil ci njiital suñu bàyyi alaaj Cheikh Kanji suñu ca paree danañu wasifa suñu ca paree danañ ci daawu ñaanal mboolem kilifa réew mi waaye ñaanal mboolem way dawli yi bu ñu ca paree sëñ Pape Thierno Kandji bay Daara di woy juru sëriñ As moom itam dana fa amal waxtaan wu am solo waaw bu ko defee tamit ba tey ci programme bi ñu xam ne rek danañ ci rendre hommage jigéen ju baaxoon jigéen joo xam ne jàmbaar la woon yéen ci yàlla Muhammad waxoon ne al ummu madrasa bu ko defee loolu yeneen ci bi waxoon ne jigéen université la moom moomu di suñu maam soxna Xawa Sarr doonoon université yàlla xiiroon ko ci kër maam Cerno mu doon fa jaamu yàlla tey jii mu génne ay boroomi xam-xam yàlla barkeel ko fa ba mu jur fa ay wëlli yoo ki boroomi xam-xam danañ ko ci rendre omage ñaanal ko bu ko defee gannaaw ci loolu danañ berndeel gan yi gannaaw ci loolu bu 18 heures jotee incha allahu euh, nabiyen yi kër maam Cerno Kanji ci njiital xaaj Mor Xujjaloom dana amal animation ba ak waxtaan waag yépp dana fa am incha allahu bis bi nag sëriñ bi jëflanteeg ay nit ñoo xam ne ci seenu mbaax ak ci mbaaxam moom mi gannaaw yàlla amut lu mu leen fayee mu jël leen dara jaare leen bis bi bu ko defee ki jiitu ki ñi nga xam ne ñoom lañ parrainé bis bi mooy sëriñ Basiru mbaki Ifaada di xaqiqatul asrar ka ca topp di Abdul Aziz Njaay bu yëmbal di nabiyen bu mag boobu moom it bokk na ci ñi ñu dara jaale bis bi keneen ki ci topp di Cheikh Tidiane Faye keneen ki ci topp Veña nga xam ne moom jàmbaari kër maam Cerno la radiallahu taala anhu keneen ki ci topp di uh, Abdullahi Ndiaye keneen ki ci topp tamit di Pape moodu loo su ko defee ñi nga xam ne ñoom lañ mariné bis bi nag ki ci jiitu mooy soxna Mati Thiam di madame Dieng keneen ki ci topp mooy soxna Rama Kamara di madame Diouf keneen ki nga keneen ki ci topp mooy soxna mariyama Dari moom itam marié la ci bis bi keneen ki ci mooy biisu bàccili di madame si keneen ki ci topp mooy Adama Dieye di madame kamara ñii la sëriñ bi jël bis bi dara jaale leen ko bu ko defee ñu ngi leen ci woo ñoom ak seeni mbokk ak seeni xarit ak seeni am di jàmm waaye woo képp koo xamante ne kilifa diine nga nekk ci dëkk bi ak ci biti dëkk bi ku mel ni waa cees di waa xadara maam Alaaji Ahmad Baro waa Andulaay xadara maam Cerno Dramé waa kër Cheikh Sidi Xaaji Malick waa kër maam Borom Touba képp kuy kilifa diine ci dëkk bi ci dëkk bi daal sëriñ baa lay woo ci bis bi pour nga ñëw ci ànd ceeg moom ñu bëggee yàlla bëggee yenent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan daal quatre jours après tabaski képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sëriñ as mu lay woo ci bis bi ngir nga ñëw ñu màggal yenent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu moo doonoon woote bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyoo di ziar daal di woote nag ci bés sunu maam waa kër maam Thierno Kandji sunuy kilifa diine nekk ci njaareem ah di bés boo xam ne sëñ As Kandji moo koy def di sunu sëriñ sëñ As di doom ci sëñ Bayu Daara mu ngi ci woo bépp doomu aadama bu nekk njaareem bépp kilifa diine bu nekk ci biir Sénégal di ci jiital waa Tiwaawan di ci jiital waa Touba di ci woo ñëpp bàyyiwul kenn ndax ñoom suñuy sëriñ lañ. ñu yaakaar leen ñu tudd suñ njaboot gi yëpp macha allah di ñu taxaw nag ci xewu diine yëpp macha allah sëñ askan mu ngi ci woo mu ngi ci woo GIE Coro juuf mu ngi ci woo daayira nabi sopp nabi Thierno Kandji su koy si la jiite ko mu ngi ci woo daayira sopp nabi Thierno Kandji bu caane saax mu ngi ci woo daayira munta Muntaha Dimu Fillahi lycée Ndayane mun ci woo mouvement jeune Tidiane Ousmane Ba jiite ko mun ci woo mbootaayu soppe nabi bu Okas Nogay Cissé jiite ko mu ngi ci woo as soppe sëriñ as Kanji bu ruq bu sew mu ngi leen ci woo ñëpp Ndey Jeey jiite ko soxna Ndey Jeey madame Kanji jiite ko mu ngi ci woo daayira nabi bu marché Ndumbe Diop Mor Mar Bey ak Aji Ndey Mbeng jiite ko mu ngi wo woo daayira sopp nabi bu keur yeli elage ablay ndjay Ndiaye ko le président ablay ndjay jiite ko mu ngi len ci wo ñoo ñep di ci wo bepp mboolem dom adama bu nek Jurbel ah besu Jurbel la nak di besu sunu serigne ñu ci wo ñep 4 jours après tabaski inshallah wa assalamu alaykum wa rahmatullah ginnaw bi ñu sante yalla julli ci sang-sang yi ñaanul sunu wajur ñu eh, ngi nuyu sëriñ Habib kanji imam ratib ñaan borom bi subhanahu wa taala mu may ko wér may ko wérle ci barki yonent bi noonu la ñuy suñu sëriñ Baye Daara Kandji di ko ziar bu baax di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu may ko wér may ko wérle ba lépp loo xam ne bëgg na koo liggéey ci kër maam Thierno Kandji suñu borom defal ko ci tawféex waa ñu ñëw rek tey ci li nga xam ne ñu fi boole mu nekk bés boo xam ne du negulet bis la boo xam ne heure bu tabaski desee ñeenti fan sëriñ as kanji ibnu bay daara kanji daf koy def muy bésu diine di bésu lislaam waaye di bés boo xam ne nii amul benn tarixa boo xam ne yaa ngi ci dëkk bi te waroo cee dugal sa loxo ci biir bés bi nag mu am ñi nga xam ne dina leen ci woo commencé ko ci ñi nga xam ne ñooy autorité yi ndax dañ naan sëriñ as moom sëriñ asu ñëpp la amul tijaan amul murit amul laayeen ndax képp koo xam ne nii yaa ngi ci dëkk bi lépp loo xewle boo gestoo di gis sëriñ Ass Malick Kandji lépp lu waaye di def ci dëkk bi boo gestoo di nga gis sëriñ Ass Malick kon jàpp naa ne bu fekkee ne dafa am bés bu ni mel képp koo xam ne dégg nga ko wala ku ci koo ko mën a déggee rek war ngaa mën a bàyyi sa yitte ñëw teewal ko ci bés bi ndax moom du faat benn bés boo xam ne nii mi ngi xew ci njaareem waaye mi ngi xew ci senegal ndax yamul fii rek fépp foo xam ne nii euh, ñu ngi fay woote diine rek mu ngi ci mu ngi ciy dem euh, ci biir loolu ñu ciy woo monsieur le gouverneur de la région de Diourbel Serigne Ibrahima Fall di ci woo le préfet Maguette Diouk waaye di ci woo honorable député monsieur le maire Malick Fall di ci woo monsieur Dame Diop waaye ñu ci woo kooku ñuy wax Fat Diané di ci woo aussi mm, monsieur Moustapha Gueye directeur CROUS di ci woo euh, di ci woo Balla le ministre Balla Fofana ñu ngi koy wo ci bës bi waye di wo maître gay tamit directeur maître gay ñu ngi koy wo ci bës bi di wo le directeur Sayer Diop di wo le directeur de l'emploi pam Modou Fall di wo Abdourahmane li mi nga xamné tierno kanji la dëkk waye di wo Pa Abou Camara mi nga xamné tierno kanji la dëkk di wo suñu tata ndey Diop Camara waye di wo Soxna pende Cissé di wo ñepp ñi nga xamné ni ay autorité lañ Nek ci dëkk bi ñu leen di ñaan ci bës bi ñom ñepp ñu ñew ci ndax ku ci teew sa bopp nga teewal te ku teew ci bésub diine lépp loo fay wut si suñ borom mën na la koo defal ndax ki ko woote jar naa wuyu comme ni ma ko waxee sànq ndax lépp lu xew ci dëkk bi rek mu ngi ciy bay waaram jëmul ci diine rek waaye ci administration lépp loo xam ne dañ koy woote moom mii mooy tànki sëriñ pap kanji bay daara lépp lu ñuy woote ci gouvernance dina teew lépp lu ñuy woote ci préfecture dina teew lépp lu ñuy woote ci administration fii ci Jurbel dina ci teew kon kooku su wootee bés bu ni mel defe naa ne ñëpp war nañ cee teew buñ ko def nag bésu sëriñ As nañ ko def bésu ñëpp buñ ko def bésu tarixa cheikh nañ ko def bésu tarixa yëpp ndax sëriñ As dafa seq ak jàmm ñëpp ñu nekk ci tarixa Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ñëpp ñu nekk ci tarixa murit ba ci Baay Faal yi ñëpp kenn ku ci ne rek am na lu mu seq ak yow kon bés bi buñ ko tënk nañ ko yaatal ñu xam ne bés bi bésu ñëpp la di ci woo daayira yi ndax daayira yi buñ ko waxee ñoom seen relation ak sëriñ Asmalik Kanje du tey daayira bu xew ci Jurbel daayira soppay cheikh yi jëpp nekk ci Jurbel di bay seen waar kenn ku ci ne rek war ngaa mën a bàyyi sa yitte nga ñëw ci bés bi waaye ñu ciy woo kilifa diine yi di ci woo sëriñu daara yi loolu it lu ci am solo la ndax ku wax sëriñ As wax daara ñu ngi ciy woo sëriñu daara yi yépp bu ko defee ci bés ba ñu ñaan yàlla suñ borom yóbbu ñu ci ñu commencé ci bisimillahi rahmaani rahim ñu génn ci alhamdulilahi rabbil alamin waaye di ci woowaa marché Ndumbe Diop ndax buñ ne waar marché Ndumbe Diop rek kon ñu ngi wax paap Ndiaye mi nga xam ne moo fi teew waaye di ci woowaa ba di ci woo Massi la di ci woo Mil Malick Seck di ci woo bépp autorité boo xam ne nii yaa ngi ci dëkk bi ñu ngi lay woo ci bés bi di ci woo suñu frère Seydou saw di ci woo Asbirane Seck nga xam ne wóllëre sëriñ bi la di ci woo ñëpp di ñaan yàlla suñ borom yóbbu ñu ci bisimilah rahmaani rahim ñu génn ci alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi jégg lu baax ci kàddu mbokk mi noonu kon ñun ñëpp ñoo ko déggandoo ñu doon amal appel boobu jëmmee ko ci li nga xamante ne mooy bésu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye di ci rendre hommage sunu maam Hadja Hawa Sarr comme ni ko Cheikh Ahmad Barokan ji waxee kon bés baa ngoog dégg ngeen tamit woote bi nga xam ni le président Alhaji Ceekura Seen amal na ko waaye sunu yaay ju tedd ci tamit woote bu am solo bi mu àndal mbokk yi ñu ànd ceeg nag mbooleem jigéen ñi nga xam ne dañoo bëgg sayduna muhammad waaye di leen ci woo mbooleem daayira yi bàyyiwuñ képp koo xamante ne rek soppe yonent bi nga waaye nag di ci woo ñi nga xamante ne ñooy waa média bi di presse bi euh, di ci woo alxaaji Talla Thioune bu Bawol News waaye di ci woo alxaaji euh, Mamadou Sylla ñu gën ko xam ci kàggu di ci woo la rajo Migrant FM di ci woo mbooleem rajo yi nga xamante ni itam ñu ngi ci Jurbel bàyyuñ kenn dëkk yi gox goxaan yi fu waay mën a nekk bëgg yonent bi na nga xam ni bës bi sa bës la ñun ñëpp ñu ñëw àndandoo gën a bëgg Seydina Muhammad ñu renouveler suñu cofeel ci yonent bi ndax nak serigne as bu wote kep ku sop sidna muhammad waro xaar ñu lay wo ndax mom sidna muhammad mo sakkan mom yonent bi mo yaatu mom yonent bi mom dong lañu bëgg moo tax ñu sakkal ko bes kon bes ba ngok kañ lay doon 4e jour après tabaski fan lay doon ci hadara keur mam Cerno Kanji radiyallahu taala anhu ci buntu hadara bi kep ko xamni ne nga fofu bes bi di nga and ak ñun ñu yalla bak sidna muhammad alayhi salatu wassalam waye bege ponkal mam Kanji mbokk yi bés baa ngoog ñu ngi ci wo ñep bàyyiñ kenn sëriñ Ass gi borom xaas borom xilaas ànd nak ay soppeem ànd ak mbollem daayira yi ci Jurbel mbollem daayira yi ci aduna bi mbollem ñi sopp sayyidina Muhammad ali salatu wasalaam di leen wo ci bés bi wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ya yaa al wara sarafan fallahu xaafizuhu fi kulli muntaqimi wa man takun bi rasulillahi nusratahu in talqahu al usdu fi ajaamiha tajimmi subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi Balcom. Balcom pour avoir une bonne communication. Balcom, bienvenue chez vous.